ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel tey nag ñu ngi fii ci Jolof Chicken Jolof ci Chicken nag ku ne xam na ne mi ngi woon fee ca Touba Xayra jamono ji nag dañoo toxu si fii ci e bi nekk ci yoonu héliport bi Jolof kën nag ku ko xam-xam ko ci yu baax ginaar yu saf yu neex yu sell te ñoom nag seen liggéey sell na saf na neex na Jolof Chicken mi ngi woo képp ko nga xamante ne ni yaa ko daan fekk Touba Xayra mu ngi lay woo fii ñi ko fa daawut fekk tamit mi ngi leen di woo fii di wax ne numéro yaa ngi noonu au bar de l'écran Jolof Chicken ci yu saf ya yu baax ya

رضيت به ربا كريما مكرما وقاني الهدى والحرب والبار والتلبى جزائي على المولى بردي ذوي الفراق ولي وجه مالا sëñ bi ñu lay nuyu di la ziar di la bàyyi rek nga présenté ak askan yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel. waaw ñu ngi la ñuy sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay bi Euh, di leen jox nuyoo bi di ko jox euh, seen waa télé bi di ñaar ñëpp jàmm daal. depuis quand la fi la Jolof ci kan waaw Jolof ci kan bon ñun ñi ngi nekkoon xayra euh, presque def nañu fa deux ans bon après ci diggante bi ñu bëggoon mu gën a yaatu moo tax ñu daw ñëw nii xam nga pour mu gën a yaatu boo ko defee ku nekk mën ci gis sa bopp waa Mbàkke mën ci gis seen bopp waa Touba mën ci gis seen bopp xam nga parce que Jolof dafa pour ñëpp daal nekkul pour kenn rek pour ñëpp la daal. waaw pour ñëpp gis seen bopp daal moo tax ñu ñëw ba fii xam nga pour yaatal mbir bi pour ku nekk gis sa bopp. est-ce xayra gi ngeen nekkoon yéen a fi yéen a nga fa doon gis seen bopp bu baax a baax par rapport ak fii. xayra moom macha allah kii woon na loolu macha allah amoon nañ fa tour euh, te amoon nañ fa client tamit euh, yaakaar naa ni client yi fa nekkoon daan ñëw fii daal waaw euh, ñi nekk Mbàkke daan mën a ñëw fii bon fi moo gën a yaatu fii nga gën a mën a gis sa bopp daal ci Jolof Chicken ci wàllum bi yan ak yan ngeen di waaw bu dee ci côté Jolof bi côté Jolof bi euh, am na Jolof ci kën euh, comme ay Jolof un famille famille 1 famille 2 famille 3 xam bon am na tamit livraison à domicile xam nga numéro baa ngi fii boo ci wootee rek gars vite fait ñu yónnee la xam nga bu dee ci côté fast bi tamit aussi am na shawarma am na hamburger am na sandwich am na norvégienne waaw fii daal. est li ngeen di jaay yomb nag comme ça ñi nga xam ne amuñu doole ak ñi amul ñi am doole ñoom ñëpp est-ce que waaw waaw waaw EDECA Jolof ci kan dafi nekkal pour askan bi yëpp moo xam ku am alal la moo xam ku ñàkk alal la maanaam fii képp ku fi ñëw loo soxla rek ak njëg boo yor rek di nga mën a am li nga soxla fii daal ak njëg boo mën a yor rek boo ñëwee di nga fekk nga soxla daal. naka ngeen nga xam ne waaw bon man bon euh, accueillir bi boo ñëwee salaamaaleykum maaleykum salaam li lay njëkk rek mooy ubbi la suñu kanam ree la kaftaan ak yow foo dalal la nee la bi nga waaw wax nga lu am solo nag surtout hygiène bi nag hygiène bi moom même suñu patron bi sax da koy kaas saa su ne hygiène bi moom lu am solo la parce que avant tout hygiène bi moom dafa war a nekk priorité waaw. effectivement hygiène bi dafa war a nekk ci place nekk ci nit ki nit ki ci boppam dafa war am hygiène fi ngay liggéey am hygiène waaw bokk na ci première euh, mbir boo xam ne patron bi da koy wax saa su ne. waaw suñu patron ins loolu lay wax saa su ne xam même abuka day wax saa su ne euh, hygiène bi dafa soxla hygiène hygiène bi dafa war a set parce que kii jënd si am na ñoo xam ne nit ñi yemuñu ko parce que kii lekk bu xelam xawee xel xel ma ti tuuti rek mun na ñàkk bëgg li ngay ngay jaay même bu neexee sax du ko du si sawar parce que amul hygiène donc man la première des choses man sama man en personne man damay veillé ci bi mu commencé su ñun en personne ci collin bi ci yaram bi ba bu ñu xoolee dañ xam ne vraiment affaire yi seet na sell na neex na. lan askan wi te léegi ngeen dox waaw askan bi li ma la ñuy wax euh, mu tuuti mu bari la woon foo woon rek moo fi ne xam nga affaire gën naa ñoŋ nag sama xalaat bu gën naa baax ndax tey tey jii bu kilifa bi borom kër gi demee ba yaatal mbir bi ba indi ko fii ngir mu yaatu pour ñëpp mën ci gis seen bopp am naa yaakaar ni pour pour askan bi la du pour ñun. du pour moom pour askan bi la ndax Eureka alalu sénégalais la alalu réew mi la alalu ñëpp la maanaam bëgg nañ daal fas nañ ci yéene képp ku fi ñëw daal nga gis sa bopp nga yëg sa bopp daal ci li nga daal waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu njiit yi yàlla may leen wér ak wér rek ñu yàgg fi te wér di ñaanal askan bi ñaan yàlla dafa jàmm ci réew mi ci senegal gi ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñaanalante jàmm yéenante jàmm te ñaan clients yi nag ñu bañ am xelu ñaar waaw kaa ngi fii Jolof ci kën ngi fii ñu ngi fii pour yi ñoom ñoom lañ fi nekkal te ñoom it ñun lañ fi nekkal donc saa ñoom du ñu dem sans ñun ñoom tamit mooy loolu donc di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi laa tudd. accueillir clientèle man maa leen di nu ma leen di comme ñu daal jàmm rek client moom comme ñu ko tubaab bi di waxee rek le client est waaw ñu dalal dalal leen client bu ñëwee ñu dalal ko accueillir ko defal ko li nga xamante ne moom la bëgg daal jox ko jox ko jox ko kii bi euh, mu xool mu tànn su su su commandé ñu dem ñu dem au génneel ko génneel ko lu mu génneel ko lu mu commandé toppatoo toppatoo client bi daal toppatoo ko toppatoo ko ba xamante ne ba ba que ba def fexe ne que ne ba bu demee dina mën a dina dina mën a ñëwaat. waaw da ngeen am ñoo xamante ne nii duñ bëgg a bëgg a toog fii nit ñi di leen gis naka ngeen di waaw euh, fi am na ñoo xam ne dañu am ñaari salle am nañu salle bi am nañu première salle am nañu deuxième salle ci biir ñi nga xamante ne bëgguñu fës bëgguñu fës dañu leen dugal foofu ci salle bi foofu am na salle boo xamante ne mooy salle VIP bi bu nekk ci biir waaw. di leen ne Jolof Chicken euh, nañ ko nañ ko nañ ko jëlee nañ ko jàppee comme seen yëf ñoo ko moom parce que Jolof Chicken Euh, euh, doomu Sénégal moom moo ko moom moo ko ubbi waaw parce que fii ay gars yu professionnel ñoom lañ fi jël ñoom lañ fi jël. Jolof Diegane aussi dafa ëmbaale am dafa amaale côté boo xamante ne am na fa du nekk Jolof Diegane fast food maanaam lépp loo xam ne ñuy jaay sandwich hamburger pizza shawarma yëpp waa prix prix abordable ah salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi. Ah, tey nag bu ngeen gisee eh, tubaarikàlla macha allah sunu taxawaay ngeen xam ne ñu ngi ci fii ci Jolof ci kën bi nga xam ne moo nekk ci ODCAV bii nga xam ne moo nekk ci eh, route nationale bi eh, bi nga xam ne nag tubaarikàlla moo nekkoon xayra moom lañ leen fi indil ndax yéen ñi nga xam ne fu Jolof ci kën nekk rek ngeen fekk ko fa yéen ñi nga xam ne ay soppe ay xarit ngeen ay am jàmm ngeen indil nañ leen ko fii ci ODCAV bi nga xam ni pas péage ba bi nekk ci péage bi déedéet route nationale bi fi la boo jugee Touba ñëw ba ci rond-point bi tubaarikàlla nga jàdd jëm ci garage bees bi romb gaaraas bi romb héliport jubal mel lu jëm ngaabu ODK bi nga xam ne moo nekk foofu ci route national bi fa indi jolof ci kën bi jolof ci kën nag la ma ci waxoon laa ciy waxaat tubaarikàlla kilifa yi xam nañu ko miin nañu ko taamu nañu ko bëgg nañu ko te doyloo nañu ko ndax nag tubaarikàlla euh, képp koo xamante ni si am nga gan goo xam ni dafa ñëw ci yow urgent Euh, bu la neexee songal jëlog ci kan tubaari kàlla wala nga def sa wootee ñu defal la commande euh, joxal la ko livreur bi mu indil la ko ba sa kër nga teral sa ay gan te doo sonn doo togg doo yàq ndax jolof ci gan dafa complété. gis ngeen mi ngi nii tubaari kàlla macha allah waaw comme ni ngeen ko bëggee rek noonu lan leen koy lan leen koy defalee bu ngeen ñëwee di ngeen fi fekk ay éléments yu xarañ éléments yu sawar éléments yu civilisé ci góor ci jigéen. fa tabaarikàlla waaye nag ñu ngi woo àdduna bépp ñu ñëw fii tabaarikàlla euh, nee naa la waa waa Mbàkke Bawal bàyyi wunu leen waa Touba bàyyi wunu leen waa Ñanka bàyyi wunu leen waa Boofeen bàyyi wunu leen waa Ngaabu bàyyi wunu leen waaye bàyyi wunu waa Jurbel tabaarikàlla bépp dëkk boo xamante ni si euh, jege nga euh, ODCAV bi nga xam ne moo nekk ci national bi waaye danoo xam ni Bawal dafay dëkk boo xam ni ñi fi nekk dañoo bëgg lu baax te lu baax fu mu nekk ñu fekk ko fa moo tax ñu ne nan leen daw indil leen ko yéen ñi nga xam ne lu baax fu mu nekk ngeen fekk fa nag waa daw si leen. comme ni ma leen ko waxee woon rek ci Chicken mu ngi ci EDK bi ci yoon héliport bi saf na neex na bàyyi leen ko xel yéen ñi ko ñamagul ñëw leen ñi ko ñamoon nag bàyyi leen xel mi ngi fii ci wet ci e bi nekkee fii.